MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons que chaque information soit pure. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Alamin. allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaqi walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokk jullit yi ñu ngi dellu si di nuyu ñépp waaye aussi dellu si di wax rekk ci li nga xam ni gis nañ ko te mu xew ci jamono jamono nag yàlla dafa dogal jullit bi yàgg na di fi jànkonteeg loo xam ni dañ koy tuddee ay natt natt yoo xam ni téere bi ñu amee te muy alxuraanul karim daf ko certifié ni dafa bokk ci dundu jullit bi yonent bi nga xam ni itam mooy yonenti islam te mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ni moom la yàlla def muy le meilleur des êtres créés mais moom moo ëpp lu mu jànkoonteeg la ñu tuddee wàllu nattu ci giiru dundam te yàlla tànn na ko moom yonent bi indi ko ci humanité bi pour mu constituer yërmande yàlla ci génération yëpp waaye ci univers yëpp mais aussi rawatina ci mbindeef yëpp ba tax yàlla wax ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin teewul loolu yépp ñu gis rek ni lenn lu ci nekk lu ñu mën a tuddee obstacle wala lu nu mën a tuddee métit wala lu nu mën a tuddee loo xam ni jullit bi dañ ko jànkoonteel te mu nekk loo xam ni du luñ ko souhaité yonent bi jànkoonte naag loolu lépp waaye lépp rek mu ànd ak muñ waaye mu ànd ak xam ni yàlla ku mu bëgg ku nekk dina la nattu ci àdduna waaye teewu lépp rek mu ànd ak volonté moom yonent bi ba motol mission su ko defee yu mel noonu aussi moom mooy tax alquran dinu indil baat bi nga xam ni rek moom la ñuy wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te loolu ku ko dégg daf lay delloo si rek du jëm ci wàllu lañu tuddee wàllu dëj waaye day dellusi mooy ñun ñëpp ñu xam ni ci yàlla la ñu jóge mais aussi ci yàlla la ñuy dellu ci contexte boobu nag nattu bu mën a dal ci monde islamique bi waaye natt bu mën a dal ci kaw jullit ak fu mu mënta nekk ci àdduna su fekkente ni am na dégg-dégg boobu ci alxuraan rek war na mën a muñ nattu boobu ndax xam ni nattu boobu su ko muñee su ci ñàkkee bakkanam mën na bokk ci ñi nga xam ni ñooy shuhadaa uy su fekkente ni yàlla épargné na ko aussi ba mu dund dina bokk ci ñi nga xam ni yàlla daf leen di récompenser ëllëg xam nga boo xoolee catastrophe yi di am yépp nu di ko tuddee ay catastrophe naturelle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu ci waxoon bokk na ci ñi nga xam ni yonent bi waxoon na ni su nu demee ci jour bi ñoo tuddee le jugement dernier muy bisu yowmal qiyam mu wax ni balaa ñuy atte ñooñu yàlla dina yebal ay malaayika ci ñoom ñu xamal leen dalal seen xel wax leen ni lii kat ngeen euh, nekke woon ci àdduna ba loolu dogal ngeen am taxawaay fii tey ci yowmal xiyam du ngeen fi am lu dul jàmm yonent bi waxoon na ñu bokk na ci ñi nga xam ni catastrophe naturelle yi laal na leen ci seen dund ba du ñàkk ci seen bakkan lu mel ni ay tremblement de terre lu mel ni ay safara lu mel ni ay inondation ak loo xam ni xeetoon ak lu mel noonu su ko defee nag loolu daf ñuy dugal rek ci li nga xam ni moo concerné suñu déclaration bi te muy message bi nga xam ni moom la ñu amee tey jii ñu fas yéene ko jàllale ci jullit yi nga xam ni ñoo nekk ci àdduna bi yépp waaye rawatina ñu jiital ci jullit yi nga xam ni tey ñoom la catastrophe bii dal te nu nekk ca turki ñi aussi nekk ca Syrie su ko defee li ñuy digal sunu bopp di ko digal communauté musulmane bi yépp loolu rek lañ leen di digal te mooy encourager leen ci muñ mais encourager leen aussi ci nangu nattu borom bi ñëpp xam nañ ni nattu bu metti la parce que en turki amoon nañu tremblement de terre boo xam ni defoon na plus de dix huit mille en dix neuf cent quatre vingt demoon na ba nu ressentir que ci Istanbul waaye gis nañ ni bii nga xam ni moom la yàlla dogal mu am ci deux mille vingt bi bokk na ci tremblement de terre yi nga xam ni ñoo ëpp lu ñu yóbbu ci bakkan ndax tey bu ñu demee ba àgg ci plus de vingt huit mille ba noppi ñuy xalaat bilan bi encore gën a évoluer gën a yaatu kon dañuy gis ni kon loolu lu metti la waaye nag dañuy jàpp ni loolu moom. Euh, du ñoom rek lay dal loolu yàgg nay dal ay jullit yàgg nay dal ay réewu jullit réew bu ci mel ni Indonésie xam ngeen ni li fa tremblement de terre di am bare na waaye aussi yooyu yëpp bu agsee da nga koy dund rek avec philosophie da nga koy dund avec philosophie jullit nag bu ñu waxee mu dund dara avec philosophie euh, lenn rek lañ ko cay digal mooy en premier mu nangu dogalub yàlla nangu dogalub yàlla mais aussi nangu ni jullit du ñàkk ci dundam mu am ci ay nattu natt yooyu yëpp nag yàlla mën na ko boole ci yii dafa am peut-être ay bàkkaar yoo xam ni gisoon na ni soo ko yóbbaalee ëllëg mën na doon problème yàlla teg la lu mel noonu pour teggil la bakkaar yooyu yeneen yi aussi mooy yàlla mën na jéem a tester sa foi ndax bi tremblement de terre bi amee maa ngi ci suivre benn ate benn ate muy wax ni euh, lu ko jaaxal mu ni dafa gis tu récemment euh, am na ku fi lakk alxuraan am na ku fi jël téere alxuraan nee na lakk ko publiquement te nee réew moom ka lakke gis na ni tremblement de terre amu fa te foofu la waroon am moom ate bi loolu la wax mu ni léegi nag tremblement de terre bi dem na mais dal na ci kaw ay jullit kon moom mën na remettre en cause islam ak ñoom lu ñuy woote xam nga message yooyu dafa nekk message yi nga xam ni soo ci deful attention rek dafay destabiliser sa fois ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi gëmul yàlla wala ñi nga xam ni tey dañuy xeex islam dañ koy utiliser pour occasion bu am rek ñu jéem a créer foofu benn brèche dugg ci attaque islam attaquer waale foi musulman yi mais jéem leen aussi dugal ci la ñoo tuddee doute mais jullit boo xam ni yow leer na la ni enseignement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ko enseignement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan nga ko te yaa ngi topp sunna yonent bi foog naa lu mel noonu du la mën a déstabiliser mukk ndax gisoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci histoire gis nga doomam Ibrahim ni nga xam ni ba mu nekkee ndaw yàlla jël na ca bakkanam période boobu bëggoon nañu créer doute ba ñu ñëw di wax ni gis nga Ibrahim digganteem ak Ismaïla fa mu mujje waaye gis nga kii aussi digganteem ak doomam teewul yàlla jël ko pour créer benn doute maanaam ci xelu jullit yi mais boobu saxaaba yi nga xam ni dañ daan ànd ak yonent bi di ay compagnon am te nga xam ni lépp luñ leen doon seedeel mooy volonté dañu rejeté woon loolu mais des nangu message yonent bi gëm yonent bi mais ànd ak moom ci idéologie islam te idéologie islam mooy idéologie alquran ndax yonent bi amul lu mu créé amul lu mu wax yàlla moo ni ko wa ma yantixu anil hawa in huwa illa wahyun yuha defe naa nag jullit bu nekk tey loolu nga war a delloo si sa xel ba képp koo xam ni moom bëgg na créer rek benn doute ci sa xel waxal la loo xam ni peut-être demewul noonu wala indil islam sos yoo xam ni islam tegoowu ko yow nga mën a xam dëgg-dëgg nan ngay def ba préserver sa fois loolu lay diggal jullit bépp boo xam ni tey jii nekk nga en turki lii dal leen ak bépp jullit boo xam ni aussi nekk nga en Syrie lii dal leen li ci des nag muy li nga xam ni dafa concerné ni àdduna di doxe yii yëpp dafa bokk ci yi ñu tuddee ay les signes de la fin des temps mooy signes yi nga xam ni day feeñ ci aaxiru zaman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam prédiroon na ko waxoon na aussi trouble yi dana bare te gis nañu tey trouble yi ni mu bare mais trouble yi épargné wul kenn parce que gis nga séisme bi bu ngeen gisee ma wax ni catastrophe la yoo xam ni dañ ko war a jël avec philosophie mooy dafa yoo xam ni ci fi ñuy renseigné wu maanaam renseignement yi fa muy jóge muy domaine bi nga xam ni day dellu ci domaine u xayb ak li nga xam ni itam yonent bi prédiroon na ko mu bokk ci tey la ñoo tuddee le discours universel nekk ci manuel yi nga xam ni du ñëpp ñoo ci am accès nitu yàlla yi ñoo ci am accès ñoom xam nañ ni séisme yi lu nu programmé woon la à l'avance benn bi ñu ngi ko programmé woon maanaam séisme yàgg na di am ci fu ne mais yii di yii di yóbbu ci bakkan yi nu mu toll euh, dañ koy programme benn bi ñu ngi ko programmé woon ci Europe benn bi ñu ngi ko programme ci asi beneen bi ñu ngi ko programme aussi ci biir asi la mais ci région yi nga xam ni bokk nañ ci région yi gën a isolé yi nga xam ni presque ñu ngi ci côte bi mooy trois séismes la yoo xam dafa war a am gis nga trois séismes yooyu nag dafay nekk en rapport avec la mission de la fin de temps xam nga tey ñi nga xam ni dañuy euh, déglu wàllu hadis yëpp ñi ngi jàng ci hadis yi ñu wax leen imaamul mahdi bu ñëwee Màkka ba feeñ euh, dina am armée bu jóge Syrie ñëw pour song si ko mais armée boobu suñu ñëwee ba diggante Médine ak Màkka suuf si dana leen wann mais gis nga séisme yi ay brèche la yoo xam ni yooyu lay créer waaw ay ay brèche la yuy préparer situation yu mel noonu il faut ñu xam ni bu ñu xalaat rek ni dafay dem dal occidentaux yi wala dafay dal ñu dul jullit wala dañuy jàpp ni yu mel ni aussi du tee muy muy am ci réewub jullit par exemple tey su amee ci réew mu meloon ni par exemple Arabie Saoudite mais bu mu nekk loo xam ni dafay choquer musulman dañuy xam ni dafa bokk ci la ñu tuddee les signes de la fin des temps tey jii bu amee ca Japon de même bu amee comme ni mu amee ca Turquie amee ca Syrie mais aussi loolu warul mën a choquer musulman yi ndax dafa bokk ci signes yi nga xam ne dafa bokk ci signes axiru zaman léegi nag ñi nga xam ni ñoom dañuy taxaw ci beneen côté maanaam dañuy taxaw ci beneen côté ñoom xëy na peut-être pour euh, créer doute ci xolu jullit yi wala xëy na wax ni lii kat jullit yi lay dal di leen reetaan ndax ñoom xëy na gëmunu yàlla ñoom dañu war a xam ni daal lépp luy xewi yàlla programme na ko à l'avance te bu jamonoom jotee dañuy dem ba gis lu mel noonu ñi nga xam ni aussi ñi ngi dund ci discours universel bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni day dellu ci côté caché bi ñoom dara du leen ci bett parce que kenn ku nekk dana am bis boo xam ni bu ñëwee yow di nga subir les conséquences mais conséquences yi du sax lu doon ay nit di jug di ko sabablu mais yàlla mën na ko jaare ci ay catastrophe naturelle xam nga tey bu ñu bëggoon tëj discours bi rek ñu indil leen réew moo xam ni par exemple tey mi ngi mel ni que ñoo tuddee les États-Unis d'Amérique nga xam ni ñi ngi wax ci première puissance euh, mondiale ci côté bi nga xam ni xam nañ ko ci wàllu armée mag lépp mais les États-Unis d'Amérique ci manuel boobu may wax nga xam ni dañ ca tënk euh, discours universel bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais li ñu leen prédiral mooy ñoom tey jii pourtant ñu bari ñi ngi xeex ak ñoom tey ci ay côté nga gis ay mouvement yu jóg dem xeex ak ñoom wax américains yi liy jël arme mais américains yi ci manuel boobu xam nga lu ñu fa bind mooy duñ fa bind ni Amérique arme du leen noot mukk arme du noot mukk les États-Unis d'Amérique dañu ni li leen di nooti catastrophe naturel lay doon loolu loolu loolu la ñu bind ci discours universel bi mooy ñoom tey jii ñi ngi ñiy jël ay armes yëpp di xeex ak ñoom ñooñu bu ñu xamoon ni ci manuel ba arme du mës a noot les États-Unis d'Amérique ak arme boo mënoon a ñoom la leen di nooti ci catastrophe naturelle yi tey ngay déplorer muy ay tremblement de terre ay inondation ci yii moo leen di nooti kon loolu lu lay jàngal mooy yàlla maanaam prédire na lépp ci discours universel ba mais discours universel bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba aussi lépp loo xam ni moom la ñuy dund ba adduna di tukki mi ngi ci kon nag loolu dafay wane ni képp kuy jullit ak foo mënta nekk ci adduna lépp lu la arrivé war nga ko mën a jël avec philosophie nga sant ci yàlla te nga xam ni maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ni mës na ko prédire alquran lépp loo xam ni mës ko ci bind wala lépp loo xam ni alquran euh, jaare na ci kàddu yonent bi ñu jàllale ko wala ci kàddu compagnon yi wala ci kàddu ñi nga xam ni ñi ngi jàllale message islam loolu lu àdduna yàgg-yàgg loolu du mës a changé kon kenn ku nekk na ko jël avec philosophie ci monde musulman bi te xam ni képp koo xam ni mi ngi toog di jéem a semer doute ci seen xol ñoom jullit yi ñoom nañu def la nga xam ni moom la yàlla waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy la mu ni ko woon fa intawalaw fa xul hasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh MCTV La chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. tout servi. Veillons que chaque information soit